lislaamaa ngi jooy jugleen daalal ko sayyarta ahmada li nabiya dañuy sant yàlla bi ñu yàlla boole ci xeetu yoon ci yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam li xaaji doon wax léegi rek mooy dal ñépp ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam saxaaba boobu nga xam da doon jeex di ñiis di ngeer saa bu yonent bi jàkkaarloo moom sentir ni kii am na mu ngi suuf am na loo xam daf koy dund lu metti yonent bi laaj ko lan la mu wax wax ju jooju nga xam ne moom la wax defe naa ne suñu réew mi am na fi ñoo xam lu ñuy bind ba tey sëñ Mbàkke buñ ko dee liir dinañ xam ni Sénégal desul gannaaw benn yoon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lii preuve la ci parce que lii c'est la première fois ñu taxawal ko mais biñ koy taxawal am na ñuy proposé grand am na ñu wax Sorano mais dañ ni nañu natt suñu bopp natt yonent bi nan la mel ci ñun sallallahu alayhi wa sallam moo tax xaaj bi fi nekk sax xamuñu leen loolu nag du kenn. du Muhammad du kenn mais yonent ci yàlla Muhammad la sallallahu alayhi wa sallam kon nañu gën a jàpp yonent bi nañ ko gën a wóolu nañ ko gën a bëgg teg ko foo xam ni duñ fa duñ fa teg kenn ndax yonent bi nu mel ci ñun kenn melu noonu ci ñun yonent yi ku ci nekk da ngay am problème yowmal qiyam ba mu des si yonent bi sallallahu alayhi wa moom rek la ñu wax sal tuuta laajal loo laaj dinañ la ko jox kon kooku mooy waaja kooku jara àndal man nag tey dafa am lu ma bëggoon su ma amoon terrain dinaa ko jox su ma amoon oto wallahi dinaa ko jox parce que man sama langage ci arab sama làmmiñ moom moo ko defar Mouhamadul Amin billaahi wallahi taalaahi mere na ma ci téere lu mat ñetti weer trois mois mu mere ma ñoom xaaji Omar ak ñoom euh, Cheikh Omar Fouti ab Abakirin mën nañoo nekk seede ci man trois mois mu mere ma ci ndax téer yoo xam ne daf ma ko doon jëndal ustaad daa mooy nadrata naam na dara tan naan téere boobu la mu ne ma da koy jënd defar sa langage bul waxati dara loo maîtriser wul bul yëkkati benn aaya boo xam ne moo ko loo boo ko naree wax ci olof di ma topp nga xam ne benn xaraf du ko ci gën sévère ci man dañuy xuloo yenn saa ñuy ñëw ñu jubóole kon man mënu ma koo fay ak li nga xam ne moom lay def ci dënn jullit ñi saa boo ko dégloo wallahi di nga génnewaat say téere jàngi kenn mënu ci dara noonu defe naa ñëpp nangul nañ ko loolu ak respecté bi mu respecté xam-xam respecté gi nga xam ne respecté na ko xam-xam nga xam ne loolu doomi soxna yëpp ko ko nangul boo taxawee ci kanamam loolu rawax wax ci diine duñ ko bàyyi xel kon loolu lu mu defal yoon ci bi la daaw nag taxaw nañ ci rawdu rasul sallallahu alayhi wa sallam ñu jaayante foofu mu ne ma jaayanteel ak yonent bi jigéen nga dangaa war a liggéeyal lislaam fexeel ba am jigéen ñi ndax jigéen ñi ñoo dimbali lislaam sa communication bul viser kenn viser ñëpp ndax ñëpp ñi ngi bokk ci umma Seydina Muhammad Seyda jaayanteel ak yonent bi soo jógee fii nga dem masjidu Aïcha nga jaayante ak Seydatuna Aïcha moo tax jigéen ñi ngeen gis fi ñu toog bokk ci groupe bi ñuy wax Madinatul Munawara ak soppe na bi jigéen ñi jiite ñoom ñëpp bi ma ñëwee ren ci lañu dugg am na ñoo xam ñi ngi muuru jàng seen diine di dund lislaam dëgg dëgg dëgg kon dañuy wax alhamdulilahi rabbil alamin ba ñu yàlla dimbalee loolu ñu jaayante woon ak yonent bi sallallahu alayhi sallam yàlla dimbali ñoo lii ma yor nag du dara yonent bi nit joxe na wane nit joxe na nëbb Ousmane taxaw na ci kanamu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn ba yonent bi ni Ousmane dootul defat defati yàlla lu ko naqari damaa bëgg yéen sama mbokk ngeen jàppale ma ndax su ma amoon caabi oto pap pap su ma amoon caabi oto fii laa ko koy tegal parce que kooku nekk xam ne des émission yi mu fay def nu mu mettee guddi lay jóg fajar amul oto ci li muy wax ci yonent bi loolu c'est pas normal ana jullit ñi oto yi nga xam ñu nga ko denc mais nañ ko ci jox benn taxi lay jël di liggéey moom ak ay moromam ñu bari ci sponsorisé wuñ ko mais nañ ko dimbali jox ko oto boo xam ni xëy dina ci mën a liggéey liggéey bi yomb kon yéen sama mbokk indi leen cadeau yi ak enveloppe yi ñu ànd teral Mouhamed jërëjëf euh, Seyda mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa Seyda mbokk yi asalaamaaleykum Seyda mbokk yi asalaamaaleykum mbokk yi asalaamaaleykum mbokk yi asalaamualeykum ñaata yoon laa leen nuyu ñeenti yoon mbokk yi olof nee na olof nee na sa noon turu teraanga wuum la tudde dëgg la ndaxte amatu ci pexe lan laa bëgg a wax sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi ñan ñoo ko tudde woon al amin bi suñu mbokk bi yëkkati sayda ah? Pape borom renaissance bi teewal président Macky Sall. borom renaissance bi teewal président Macky jox na ma enveloppe bu doon dolli ca la mu defoon. ñu may ma tuuti mani mani kan moo tudde woon yont yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam al amin du waa Makka du ñoo ko génne woon xanaa ñii doy nañ sëkk noonu te teewul nag Seyda mbaa ma delloo la sa rajo dem toog li nga wax ma yëngal ma jóg taxaw ne bokkuma ci protocole bi mhm. nañ ma arrêté li déglu sama message deux minutes ñu dégg li may wax mhm. jàppale la ci li nga bëgg mhm. ndax dégg nañ ko ba mu tàbbi sunu xol al amin waa Màkka ñoo ko ko tudde woon pexe ndax càmbar nañ ci biir ak ci bitti moo ci gënoon a wóor ñu ne ko al amin benn bis problème am sëñ Mbàkke xeer wa ca màkka nga xam ni ku tawaaf kaaba gi ba yeggal ku tawaaf ba yeggal kaaba ga te foonoo xeer wa jàpp ni laaloo kaaba gi demoo màkka en ah, oustaz Mouhamadul Amin xeer woowee keroog bañ ko bëggee delloowaat place am coow bari giir gu ne ni maa koy dugal te ku ko dugal kat histoire dalay topp ba faw ni famille sàngam ñoo dugaloon xeer wa oustaz Mbacke Serigne Hadi Niass Serigne Hadi soppee nabi ki ngay waxtaane foo toll keroog ba ñépp jaaxle dañu ni nañ ni kupp waxtaan wi nañ ni kupp jaas yi nañ tëral ngànnaay nañ toog ñun ñëpp wàkkirlu ci yàlla ku njëkk génn ci bunt bi lum ñu dogalal ñu jaar ci ñu jekki-jekki bi sang ba ni tëll sa turandoo al amin sayyiduna muhammad moo ni tëll ni lu xew ñu nettali ko lu xew mu ni nañ bàyyi coow li yow ak yow ak yow ak yow ay mbokk ngeen bu ngeen fi tojantey bopp ay mbokk a tojantey bopp daal ni mu rét kaalam bu tedd ga lal daal ni giir gi jàppal ci bii giir gi jàppal ci bii giir gi jàppal ci bii giir gi jàppal ci bii loxoom yu tedd yi mu yëkkati xeer wa teg ci digg kaala gi ne na ko giir yépp yóbbu ci biir fa mu war a dem kookoy sayiduna muhammad soxna sii nag def na li mu war a def xam nga lu mu def mooy benn koñ ba moom yëkkati na ko moom yëkkati na enveloppe atuk giiram gi mu àndal ni koñ ba yoon ci yàlla muhammad joxoon génn giir man gàddu naa ko yëkkati naa ko mbokk yi ñetti koñ yi ci des koñ bu ne pour bañ a yàggal jotaay bi ku koñ jaral ñaari junni képp ku koñ jaral ñaari junni rek na mel ni ñaari junni yooyu keroog teg nga ko ci loxo ba yoon ci yàlla muhammad jëloon ko ca xeer wa ngir jàppale ko diine jëm kanam ku ko jaral jugal taxaw ku ko jaralul toogal di ma seetaan lislaam a ngi jooy jug daalal ko